voilà Abdourahmane Gueye secrétaire général national de l'UDEN Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal donc euh, comme niñ ko jàppoon ak gouvernement bi démb dañoo deman si bërëb bi nga xam ne fala suñu nattango yi waroon tase pour ñu mën leen a yóbbu seen bërëbu liggéeyukaay waaye lañ fa gis xol bu naqar yi lañ fa jëlee ndax dañoo ñëw gis ne jamono yi passé yëpp ak mbas mi ñu ngi doon wax fu ñu mën di daje nañu fexe ba mbooloo bu ñu di daje nañu organiser wu ba nga xam ne nit ñi si seen diggante dinañ mayante lu tolloog mètre ak genn wàll mais ñu gis ne démb dafa mel ne dañoo dajale jàngalekat yëpp mu mel ni rek sardine bu nekk si pot kon loolu dafay wane ne am na loo xam ne taxawaay bu gouvernement bi waran am te amu ko muy benn ñaareel bi mooy ñu gis ne am na jàngalekat yoo xam ne dañoo war a dem si région yooyu muy Diourbel ak Thiès ñëw ba foofu ñu ne leen yéen amu leen këyit mais loolu njeexital wane ni am na lu des si ni ñu war a saytu suñu jàngalekat yi mais xam nga foofu ñi fa nekk ñëpp ay jàngalekat lañu donc li ñuy wax état bi mooy ñun dañu wax présent à l'appel parce que dañu jàpp ne année blanche warta am ñun ñëpp gis taxaw am taxawaay bu mat sëkk si loolu mais li ñu gis mooy si côté ñi nga xam ne ñoo war a nag mottali yéene boobu seen taxawaay moo xaw a des moo tax ñi ngi wax gouvernement bi ñun waa union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal du ñu exposer suñuy jàngalekat du ñu suñuy militants du ñu suñuy collègues ndax kat pour ñun dund moo ëpp solo njeexital école bi kon li ñu bëgg mooy naam dañoo bëgg njeexital école bi waaye dañoo bëgg mu ànd ak aussi dund suñuy nattangoo su ko defee nag dafa am loo xam ne taxawaay la laaj mooy fexe ba nga xam li nga xam ne gouvernement daf ko jëlan comme engagement ñu matale ka mooy bérébu jàngalukaay yi ñu def comité de veille élève bu ñëw ñu saytu la waa euh, jàngalekat bu ñëw ñu saytu la ndax yoroo feebar bi teg disposition de lavage des mains boo xam ne ku ñëw di nga mën a di raxasu di diwoo li ñuy wax gel bi li si des suñu diggante jàngalekat bi ak ndongo daar yi ñu sàmm ko diggante ndongo yi si seen diggante tamit ñu sàmm ko bu loolu amul nag ñun dinañ taxaw wax déet moo tax ngi artu ministre bi pour mu jël ay matukaayam parce que li ñu gis démb moom day wane ne bu fekkee ne feebar bi mu ngi foon kon feebar bi dugg na si suñu biir parce que feebar bi li muy bañ mooy dajaloo te foofu démb aman na mbooloo mu mucc ayib kon nag euh, li ñuy wax euh, te olof yi di ko wax balaa ngay lakkale da ngay fàggu kon ñun dañuy fàggu balaa ñuy lakkale Euh, menacé wuñu nag waaye dañuy yëglu te lii ñu wax tamit fowuñu si reetaan ñu si d'accord nañu si ñu reprendre ni ko ñëpp di defee ndax loolu mooy tax njàng mi am njeexital waaye li ñuy bëgg bëgg bëgg loolu tamit suñuy bakkanu naataangoo moo ñu gënal kon li ñu jàpp ne loolu nag moo koy mën a euh, fang mooy ñu mesures yi ñu jëleen yëpp ñu respecté loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon yëkkati eh, jagle ko waa senegal ndax jàngalekat yi gàcce nga alaama démb ñëpp gis nañ ne dañoo ñëw taxaw pour wane ne ñoom réew mi moo leen ñor pour wane ne ñoom li ñu nekk da nga xam ne moom mooy seen tedd nga duñ ko café duñ ko foye li des nag mooy employeur bi muy ministère bi ñoom ñoo war a taxaw pour gunge ñu ànd ak ñun def ko ni mu waree loolu nag pour mën a nekk aussi il faut que toutes les familles éducatives yi nga xam ne dañuy yëngatu si mbir mi te wane aussi seen euh, engagement à accompagner cette dynamique la ñu leen di boole si suñuy jëf waaye bu wax jotee nga woo bu jëf jotee nga beddeeku mel ne yow kese kese kese kese kese yow la mu soxal ñu bàyyi ko yow affaire bi day yàqu waaw loolu daal mooy li ñu bëggoon a yëkkati di leen sant di leen gërëm si opportunité bi ngeen ñu may nii waaw di ñax jàngalekat yi di leen wan ne di leen kañ di leen euh, ñax tamit ñu gën a góor góorlu rek metti na waaye nag ñun duñ leen bayi ñu ngi ànd ak ñoom parce que ñoom ñoo tax ñu toog fii kon lépp loo xam ne warta nekk nañ fexe ba nu nekk te bañuñu si dara